mën a xam li guddi fukkeel gi ak ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki raka raka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng xul huwallaahu ahad juróom benn yoon dees na ko ca wutal ca àjjana juróom ñetti junniy soxna te des na ko boole ci dëkkandoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nit ku jàng tawraat injil zabuur furxaan te it des na ko jéggal bakkaaram yépp lu mu bari bari doonte dafa tonni duusi géej xarit yi ku ci bëgg yeneeni leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu Mbàkke page 140 ngeen wala ngeen di abonné fii si ne xam